wa saxbihi dawi nawaali lwaali wa radiya allahu an cheyqina wa muhammad ibni habibillah xadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam amma baad bokki jullit yi bokki taalibe yi nga xamante ne yéen a ngi topp seen chaîne bu mag bi di GMT TV nekk fii ci jumaay ju mag ji ci Touba ñu ngi leen di nuyu fu ngeen mën a nekk di topp seen jotaay bu mag bii ñu tuddee ëttub xidma ngeen baaxoo ko am ajjuma ju nekk gannaaw julli gi ñu def ab jotaay boo xamante ne dañ ci jubloo leeral message bu mag bi nga xamante ne moom la al imam Serigne Mouhamadul bu soo joxe ci ajjuma ji te mooy xutba bi nga xamante ne moom la def tey jii ni ngeen ko xamee ci ak fàttali tey jii mooy ajjuma ji njëkk ci jumaadal uula euh, sëriñ Mouhamadul Mamoun Bousso ni mu ko baaxoo amalee ci teewaayu cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbakke alxalifatul aam li taifatil muridiya yàlla na ko yàlla dollee sàmm te aar ko euh, sëriñ Mouhamadul Mamoun Bousso joxe xut boobu ama am solo Euh, xutba boobu nag euh, la ñu bëgg a dikk ak yéen ci leeral ko ci wolof euh, ba mu gën a mën a jariñ jariñ li gën a yaatu ñi nga xam ne dégguñu làkku yaaram mën a xam li sëñ Mouhamadul Mamoun Bousso al imam yal na ko yàlla sàmm doon fàttali tey ak di ci soññee waxoon nañ ci yotaay yi weesu ne xutba moom li làmbool mooy ak fàttali ak waar ak e, te ñaar yooyu li muy làmboo rek mooy e, xuppe ak bégle tey sëñ Mouhamadul Mamoun Bousso al ginnaaw ci xutba bu njëkk bi ginnaaw bi mu e, sante yàlla ni mu ko baaxoo ubbee ab xutba xam ngeen faw mu làmboo sant yàlla ak ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy li ñuy wax julli ci yonent bi waaye joxe ay ndénkaan ak ay waaraateeg ak ay fàttali ginnaaw bi mu sante yàlla euh, moom al imam tagg ko ci melokaanam yu màgg yu sell yooyu waaye sant ko ci xéewalam yu màgg yi nga xamante ne moom la ñu xéewale daal di cay tànn benn tudd ko ngir mu wuutu ya ca des te mooy xéewale gi ñu sunu boroom subhanahu wa taala xéewale yoon wala jaaruwaay wi nga xamante ne moom lañu joxte mooy al yoon ni yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam jox ko ab uh, yóbbante uh, muy aw yoon wu nit ñi war a jaar mu leeral ko ba mu leer naññ moom yonent bi alayhi salaatu wasalaamu leeral fi ñu war a jaar ngir li ñu bëgg ci suñu boroom ñu mën koo am moom itam li mu bëgg ci ñun mu am ko ci ñun loolu xéewal la goo xamante ne yàlla nañu sant ko ci kon moom la ubbee ci sant ko ci wan ne ko amul weneen yoon wu gën a leer gën a baax wala mu nuroo sax ak yoon wi nga xamante ne mu nga ñu tànnal te jox ko gën gi mbindéef yonte bi alayhi salaatu wasalaamu ñu ko sunu borom moomu ñu ngi sàkku ci moom ndimbal di sàkku ci moom njëggal ci mbooleem bakkaar yi nga xamante ne ñu ngi koy def ndax kat amul benn buur buy jéggale ay bakkaar bu dul moom subhaanahu wa taala wa nastainuhu wa nastagfiruhu min zunubina la rabba siwaahu yagfiruha amul benn buur boo xamante ne mën naa jéggale ay bakkaar bu dul moom borom bi subhaanahu wa kon ñu ngi sàkku ci moom ak njéggal waaye ñu ngi seede ne amul benn buur bu dul moom deefu ko bokkaale ak dara waaye mi ngi seede ne itam yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam sunu sang bu màgg bu tedd boobu jaamub yàlla la te ndawam la boo xam ne moom la yebal ci ñëpp xéewalug yàlla ak eh, xéewalug yàlla ak muccam yàlla na ko def ci moom waaye def ko ci mbooleem gaañu baax ñi nga xamante ne ñoom la àndaloon te mooy saxaaba ya ak ña wuutu gannaaw bi di yeesal ak di leeral njàngale mi ba sunu jonn yàllay tey gannaaw loolu yéen nit ñi eh, al imam mooy wax ci xutba bi ne usikum bi taqwallahi al azim wa uxadirukum addunya fa innaha ka axlaami naaimi wa antum amma qalilin raxiluun maa ngi leen di dénk yéen nit ñi na ngeen ragal yàlla mi nga xamante ne buur bu màgg bu mat a ragal waaye maa ngi leen di wattandikuloo di leen moytuloo àdduna mi nga xamante ne ay génti kese la ni nga xam ne nit day nekk ci nelaw di gént la mu gën a bëgg xëy na waaye bu yewwoo gis ne du dara ay gént rek la woon muy xamle ne dunduk àdduna gi dafa mel ne ku nekk ci ay nelaw di gént rek te bu léegi tey rek ngeen jóge fii fi àdduna tuxu dem fa nga xamante ne mooy kërug dëgg ka te mooy barsaq te bu ngeen fa jógee yowmal xiyaam ngeen taxaw fa seen kanamu boroom mu àtte leen kon wa ilaa rabbikum raaji'uun ci seen boroom ngeen di dellu yéen ñëpp bu ngeen tuuxoo fii ci dundu àdduna gi te dund gu gàtt la gu gaaw a jeex kon maa ngi leen di uh, wattandikuloo ngeen topp ko jox ko seen lépp fàtte seen boroom ba rëccu di leen dikkal bis wastadriku baqiyata umrikum faqad dahaba julluhu wanqada maa ngi leen di eh, fàttali ne eh, di leen soññ ci ngeen jéem a dabaatal ci li des ci seen dund gi li ngeen jot a def ci ay larax ak aw wàcc yoon ngeen góor góorlu ba doo leen ca dellu waaye góor góorlu ba màng li des ci seeni waxtu fexe ba jeexal ko tàkk ci eh, jaamu yàlla ak aw ci aw yoon ndax li ci des bariwut li ëpp ci seen dund gi dem na li ci des bariwut kon nag na ngeen ci góorgóorlu profité ci balaa moo jeex wa addu ma indakum min xuquqi alcibaadi qabla an tuqada min xasanaatikum wa tuqda maa ngi leen di e, digal ngeen joxe aq e, yi nga xamante ne aq jaam ñi lañ seen moroomi jaam yi nga xamante ne da ngeen leen di tooñ dëkk ak ñoom nekk ak ñoom di jëflante ak ñoom àq yi ngeen séqante ak ñoom te mu nekk ci seeni loos maa ngi leen di sant ngeen góor góorlu ci gaaw wàccoo ak moom te mooy joxe seeni boroom àq yi nga xamante moom ngeen leen amel àq nag mën naa nekk ñaar mën naa nekk àq ju aju ci alali nit wala àq ju aju ci derub nit àq ju aju ci derub alalu nit moom mooy koo xamante ne da nga koo yoreel alal lu mu mën a doon loo xam ne ak moomeelam la nga fexe ba gaaw koo ko delloo nu mu gën a gaawee soo ko gisatut nga delloo ko ña nga xamante ne ñoo ko wuutu beneen ñaareel bi àq bi mooy koo xam ne da nga tooñ ci xas ko wala jëw ko wala yu mel wala lor ko sax ci jëmmam kooka na nga dem jéggulu ko moom ci jëm boppam loolu mooy delloo àq ja wax ko ne ko man kat maa ngi day jéggulu ci nàngam ak sàngam bu ko defee mu jéggal la ko loolu mooy delloo àq ja su fekkee ne nag kooka nag rëcc na la ba gisatoo ko nga fexe ba bëril say jëf ndax bu ëllëgee yowmal xiyaam amaana du la ko jéggal kon eh, na ngeen gaaw a delloo àq ji balaa yooyu yëpp di ci am bu ëllëgee nit ki di jàppanteeg eh, moroomum jaamam ay téere téerey baat li gën mooy mu gaaw joxe àq yim am fii ba yéwénoom ñëpp balaa faatu di ko dikkal ndax kat su ngeen faatoo te delloowu leen àq yooyu noonu bu ëllëgee yowmal xiyaam du ngeen mujjee ci lu dul fayantoo te boobaa dañuy jël ci say yiw di ko fayee sa moroomum jaam ndax bu boobaa foofu moom kenn mënta rëcc ñépp ci dëgg rekk lañuy dox ndax ki moom dëgg di dëgg moo fay dogal mooy borom bi subhaanahu wa taala mu ne wa ma amiltum fa fi kitaabillahi muddaxarun ila yawmi alqiyaama wa antum fiha an amalikum mas'uluun lépp lu ngeen mën a jëf xam leen ne yàlla sunu boroom mi ngi ko dajale ci ay téere bind ko te bu ëllëgee yowmal xiyaam seen jëf yooyee ci lañ leen di atte ndax loola mooy nekk lay tontu seeni laaj te loolu yàlla wax na ko ci alquran waaye boobu nga xam ne cheikh Mouhamadul Mamoun bu su al indi na ko dëgëralee ko li muy wax ci xutba bi muy la sunu borom di wax baad audu billahi min alshaytani arrajim yowma tashhadu yowma tashhadu fii alaykum alsinatakum wa aydikum wa arjulukum bima kuntum taamaluun bis la boo xamante ne yàlla day laaj seen cër yi muy seen làmmiñ seen loxo ak seeni tànk boobaa ñoo leen di seede di wax lañu jëfoon boobaa weddi du fa am miim du fa am ndax sunu borom subhaanahu wa taala lépp lu mu wax dëgg la waaye yemut ci loolu képp koo xamante ne fii ci àdduna def nga fi lu tollook euh, fépp suuf wala lu ko gën a tuuti ci aw yiw xamal ne yàlla gis na ko te du ko fàtte boo ëllëgee yowmal xiyaam am nga ci jot waaye képp koo xamante ne def na ab safaan lu mu néew néew ba gën a néew fépp suuf itam na nga xamante ne bu ëllëgee danga xam ne sa jëfa woon yàlla dana la ko dana la booleeg sa jëf jooja jox la ko mu ànd ak yow di saw lakkal fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara wa man yaamal mithqaala darratin charran yara yàlla nañu yàlla boole jéggal te defar ñu euh, dégg ak topp loolu mooy xutba bu njëkk bi nga xamante ne moom laal imaam sëriñ ma Mamoun bu so indi mu nekk fàttali gu am solo ndax nit ñi dañu nekk fii ci àdduna yittewoo àdduna ba mu gënal leen sax seen alaaxira te loolu njuumte lu mag lu mag a mag la mbokk yi li nit ki war a yittewoo mooy dunduk alaaxira ga nga xam ne mooy des te saa yu ko yittewoo yàlla mi ko indi fii ci suuf ngir mu liggéey fii lu mu jariñoo bu ëllëgee yawmal xiyaam dana ko téyel àddunaam ba du manqué dara loolu nag euh, sëriñ Saalixu daana ko wax ci ay baat yu gàtt ñu nit dafa am ñaari biir biir bàmmeelam ak biiru boppam bi sax ci muy ab kollam daane biiru boppam bii nag moom sunu borom mi ko ko sàkkal wàcc ko fii ci suuf dana ko wutal lum ca def biir bàmmeelam nag ay jëfam la fay jëf kon war naa yittewoo biir bàmmeelam ca jëf fa yóbbal fa loo xamante ne bu egg bu fa yeggee du rëccu waaye bañ a tal biiru boppam ba mu dox digganteem ak biir bàmmeelam kon loolu day mel ne rek mooy Euh, tënkub xutba bi nga xamante ne moom la sëñ Mouhamed Mamoun Bousso joxe ci waare ak fàttali nit ñi fi ñu war a teg seen tànk ñaareelu xutba bi euh, da cee dellu siwaat rek ni mu baaxu ubbee xutba bi te mooy sant yàlla mi nga xamante ne mooy xewale nit ñëpp jaam ñëpp ci àdduna moo leen xéewale waaye nag euh, defal ñëpp ci ngëneelul boppam loo xamante ne ci coobareem la ko defee jàmm ak yermaana ju tax ñu mën a dund ñaanal yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallam tagg ko wax jikkoom yu tedd yi nga xamante ne moom la ko yàlla defal te la ca jiitu mooy nekk ab jindiwukaay nekk ab yarekat buy jaarale ci yoonu njubba moom yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam waaye nag mooy ki nga xamante ne moo gën a jub ñëpp ëpp leen ak dogu gën leen a tegu ci aw yoon moom yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam waaye delloo na ci itam njukkal ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak moom te mooy ay saxaabaam ak ñi nga xamante ne ñoo topp ca seen gannaaw di jàngale njàngale mi ba mu egsi ci sunu yoxo gannaaw loolu mu ne yéen nit ñi képp koo xam ne topp na yàlla ak yonenteem na xam ne aw na ca yoon wa gën a jub waaye képp koo xamante ne mooy na yàlla lorul ku dul boppam ndax mooy gami mooy yàlla wàññiwul dara sunu boroom waaye moom mooy lor boppam ca la muy mooy yàlla euh, wa man yasiha wa man yas wa man yas wa man yasihima fa innahu la yadurru illa nafsa wala yadurru llaha shay'a yàlla dara mënu kaa lor waaye képp koo xam ne yaa ngi def ak mooy yàlla na nga xam ne rek yow sa bopp sa bopp ngay ngay lor inna allaha yuhibbul muttaqin yàlla ñi mu bëgg te di leen baaxee ci ngëneelam ak yërmandeem mooy ñi nga xamante ne ñoo ko ragal kon mbokk mi gë góorgóorlul ci gën a ragal sa boroom te di ko fooglu saa yu nekk mu ne fala sharafa lil abdi a'zama min an yuhibbahu sayyidahu wa mawlaah dara gënta tedd dara gënta màgg dara gënta kawe ci jaam bi mu fexe ba yàlla bëgg ko yàlla mi nga xamante ne mooy kilifa gu mag gi te mooy sangum ñëpp ndax moo ñu moom moom borom bi subhaanahu wa taala mu ne képp koo xamante ne gaawantu na góor góorgóorlu ci topp yàlla euh, di fexe ba taqoo ak euh, ragal yàlla kooko de yàlla bëgg na ko képp koo xamante ne gënal na yàlla bëgg ko da koo gënal lépp lu mën a am nee na kooku de mooy euh, ka ka xam boppam ka xam la ko war kon nañu am kersa suñu digganteeg suñu boroom am kersa suñu digganteeg suñu boroom ba du ñu gis ci lenn loo xamante ne lu mu tere la ndax yàlla mi ngi ñuy gis donte ne gisuñ ko donte ne gisoo sa boroom xamal na mi ngi lay gis amal kersa sa digganteeg sa boroom ci topp ndigalam waaye amal kersa sa digganteeg sa boroom ci mu lay gis ca mooy yàlla yi ndax eh, mu ne nañ dëddu àdduna eh, dëddu àdduna mooy fexe ba li fiy jëfandikoo lépp mu nekk looy dimbandikoo ngir mën a topp yàlla waaye lépp loo xamante ne dalay xirtal ci ak mooy yàlla nga geddu ko wan ko gannaaw yàlla gënal la loo mën a am mu ne képp koo xamante ne daa xemmeem dunduk àdduna gi ba tax mu gannaawal àllaaxira kooko sooy na xalsan na reccu bu ëllëgee bokk na ci li nga xamante ne nit ki war na koo bàyyi xel muy na bañ a gis ne mooy yàlla gi mi mooy yàlla naan mooy yàlla gu ndaw laay def gii may def kat bokkul ci bàkkaar yu mag yi waaye na xool ki mi mooy mooy kan xam ne ku màgg la buur bu màggee noonu ak mooy du ndaw fi moom kon bul xool ndaw bàkkaar bi waaye xoolal ki nga xamante ne moo joxe ndigal li ngay mooy mooy kan mooy borom bi subhanahu wa taala mi nga xamante ne moo gën a màgg lépp kon saa yoo tënkee eh, mboolem ndigal yàlla yi foofu di jàpp ne sa borom mi ngi lay gis nga am sa ak ay teggin sa diggante ak sa boroom doo jug mukk jëm ci ak mooy waaye doo def mukk lu muy tere waaye saa yoo xamee ne kiy digle mooy ki war a digle mooy borom bi subhaanahu wa taala mi ñu bind moom ñu wàcce ñu fii da nga xam ne ku mata ku mata ku mata topp la moo tax mu ne an yamini wa an shimali qaid maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid na ngeen xam ne lépp lu ngeen di mën a jëf moo xam lu ndaw la wala lu bari moo xam lu lu mag la wala lu néew na ngeen xam ne yàlla mi ngi koy xam te boole na leen ak ay ndaw yoo xam ne lu ngeen mën a def dina ko bind ñu leen di fuglu di leen bàyyi xel di leen topp saa yu nekk loolu de bu ko nit ki bàyyee xel dana bàyyi xel bu baax a baax ci boroomam bàyyi xel ci li muy jëf wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu leen di jox beneen daje ci ëttub xidma fii ci GMT TV di euh, Grande Mosquée TV di télévision bu mag bi nekk ci biir jumaa ju mag ji ci beneen ajjuma ji di ñëw ci beneen xutba ak yeneen leeral incha allahu taala wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh